min allahi taala aleykum wa ala jamii almuslimin xam naa wax ji du gudd mu mel ni li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam dafa àndoon ak Maaz ibnu Jabal di tukki Maaz laaj ko ni ko yaa rasulallahi ndax ci ocasion tukki bi loo ñu mën a jàngal lu ñu mën a fàttali mu ni ko in aradtum mu ni ko yaa maaz mu woo ko ba muy ñett yoon mu ni ko in aradtum aysha suada wa mawta shuhada wa wa najaata yowma alxashr warri wal huda min ad-dalala mu ne ko yow Muaaz ibn Jabal su ngeen bëggee mucc dund dund gu yéwén wala ngeen dund comme martyr mooy ashuhada mooy ñi nga xam ni dañoo dee ci xare wala su ngeen bëggee mucc bi ci pénc su ngeen bëggee mucc ci sawara ëllëg mu ni ko su ngeen bëggee ëllëg yàlla gërëm seen dund mu ni ko dee leen jàng alquran fa daawimu qiraat alquran na ngeen sax ci jàng alquran fa innahu naka moom alquran mu ni ko kalaamu rahmaan mooy waxi sunu boroom te nee na wa xisnun xasinun min alcheytaan mooy sécurité bi nga xam ni mooy aar nit ba bu ëllëgee dana mucc ci seytaane ba mucc ba yàlla dugal ko aljana ndax yàlla wax na ko ci alquran wa ida qarata alqurana fastaiz billah min alcheytaani rajim mu waxaat ni wa ida qarata alqurana jaalna baynaka wa bayna allazina laa yuminu bil axira xijaban mastura mu amati bis mu waat aba hurayra yonent bi alayhi salaatu salaam woo ko ñett yoon ni ko yow aba hurayra mu ni ko in arat mu ni ko aba hurayra taallam alquran wa allimu annaas ni ko del jàng alquran te di ko jàngale aba hurayra ni ko lu tax mu ni ko boo jàng alquran di ko jàngale bu ëllëgee nee na boo faatoo malaaka yi ñooy ñëw di tawaaf di war sa bàmmeel kama yaxujjul muminuuna baytallahi alxaram comme ni jullit yi di wëre kaaba ga ku faatu tey jàng alxuraan noonu la yàlla di wëre kon mu mel ni ci gàttal ñi ngi dama waxoon sëñ Fallou ni ko ñeenti bayit daf ma dikkaloon ci bi xale bi di wax ci alxuraan rek ñeenti bayit yooyu rek laay jàng su ko defee pour symboliser li nga xam moom la xale bi waxoon kitaabullaahi léegi laa ko def fii ma toog kitaabullaahi manjaatul ibaadi wa unwaanu tafadduli warrashaadi salaaxu diini wa dunya dawaaman salaaxul ayshi fi amni lbilaadi سقى الأرواح من فيض القرآن إلهي كي نفوز لدى المعادي téere téere yàlla baa ngi noonu man jaatul ibaad yi mooy musal nit ñi fii ci àdduna alquran moo leen di misal ci àllaaxira wa unwaanu tafaduli nee na bu ñu nee nit dafa baax nañ ko natt ci alquran bu ñu nee nit dafa jub nañ ko natt ci alquran salaaxu diini moo mën a defar diineem dégg naa oustaz wax ko fii léegi oustaz Baara wax na ko fii léegi nee na alquran ci lañu natt diine ci la ñu natt adduna salaaxul ay moo mën a yëwénal dund adduna maa am nil bilaadi moo mën a sécuriser réew mi saqal arwaax ak kon boog yàlla na yàlla nanda ruuxu jullit yépp ci mbëbbum alquran ndax bu ëllëgee ñu taxee la daa yowmul miaadi ci bisu pénc ba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.